ñi nga xam ne dañoo dañoo wérit sa borom yëkkati leen ñi nga xam ne dañoo néew néew kàttan sa borom jox leen kàttan te ñëpp nga nga nga nga ñaanal ñu suñu borom mu saxal ñu ci siraatal mustaqiim teg ñu ci yoon yoonu njub te ñun ñëpp nga nga nga ñaanal ñu suñu borom ba ñun ñëpp ñu mën a sax ci bennoo di di déglu seen digal bàyyi say tere lépp loo ñu digal ñu def ko te yàlla boo ñu gis ci ci ci looy tere loolu daal mooy li nga xam ne moom la moom moom la mbooloo mi moom la mbooloo mi sàkku ci yow di ñaan nag nga ñaanal nga ñaanal ñu ko suñ borom bu baax a baax sama borom lafal ñu cat te musal ñu ci am ndog musal ñu ci musiba ak balaa te ba nga xam lépp loo xam ne yéene nañ ko liggéey suñ tuwa suñ tuwaa rek ñu mën koo ànd ak yow te nga nekk suñ kanam guddi ak bëccëg sama borom may la kàttan te ñun ñi sa ginnaaw it ñu ñu am ñu am doole doole yi lépp loo joxañ rek ñu mën koo def loolu laal mooy li nga xam ni moom la mbooloo mi ne woon naa ko fi jot li ci dëng nag ci man la lu jub nañ ko sant suñu borom tabaaraka wa taala mbokki jullit yi mbokki taalibe yi. sëñ bi nee na mbokki jullit mbokki taalibe yi. ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant. sëñ bi ne kenn ku ne ñu ngi lay nuyu ci saw tur ak saw sant. Euh, di leen sant ci taxawaay bu rafet bii. di leen sant ci taxawaay bu rafet bii. nga xam ne xam nañ ne jëmmi Cheikh Moustapha rek moo war a jotaay bii. ndax xam nañ ni jën xam ngeen ni jëmmi Cheikh Modou rek moo moo waral jotaay bii. kon xel mën naa dal bu baax ci seen pasteef ak seen yitte. kon xel mën naa dal bu baax seen pasteef ak seen yitte. ndax kat nañu waxtaan wi yëpp mu ngi jëm rek ci gën a soññ suñu bopp rek. nee na waxtaan wi yëpp mi ngi jëm ci gën a soññ suñu bopp rek. gën leen a soññ ci li nga xam ne moom la sëriñ bi digle. gëñ leen a soññ ci li nga xamante ni moom la sëriñ bi digle. muy jaamu yàlla ak liggéey. muy jaamu yàlla ak liggéey. ndax moom kat moo njëkk wane yoon wi. ndax moom moo njëkk wane yoon wi. ndax sëñ Touba. ndax sëriñ Touba. mi nga xam ne moo waral lépp. mi nga xam ni moo waral lépp. fa mu jaar boromam ba agsi ci mbiram nëbbootut ndax ndax yëkkatiku ko suñu borom yëkkati. ndax fa mu jaar ak boromam ba mbiram yëkkatiku ca kaw ba wër adduna ñëpp xam ni mbiram eh, eh, eh, ak yëkkatikoom ma nga ca kaw. sëriñ Touba waral lépp. foofu rek lañu ñu joxoñ. sëñ bi foofu rek la joxoñ moom. sëñ tubaa mi ngi wax fi mu fi mu jaar mi ngi wax ba wax ne lam yataraddad kalkali walam yamil jismi ila maafiyatin walam amil waaw wax ne la mooy boroomam ci lenn nee na sëriñ Tuubaa wax na ni mossa mooy boroomam ci lenn kon nañu xam ne sëñ bi foofu la ñu joxoñ kon nañu xam ni sëriñ bi foofu rek la ñu joxoñ sunu xeebu ak sunu matadi nag dana tax ba xëy na loolu du yomba jublu nee na suñu matadi ak suñu woyof ak suñu doye rek tax na xay na lépp duñ ko mën a matal. waaye nag li am solo mooy jublu sëñ bi tamuy dëgg ci ñun. waaye li am solo mooy jublu sëriñ bi ca muy dëgg ci ñun. jeexal suñu lépp ci bëgg sëriñ ba ak liggéeyal ko te yàlla rek tax. jeexal suñu lépp ci bëgg sëriñ Touba ak liggéeyal ko yàlla rek ca yàlla rek tax. bëggante te yenente jàmm. bëggante ca yenente jàmm. ndax sëñ bi kat mi ngi mi ngi ñuy wax te dañuy tegtal wax li mu wax ne. ab murit kat ndax morit ci boppam lenn waru koo tax a jóg lu dut lu dut euh, dabu mbégum sëñ bi. ndax sëriñ bi nee na ab murit lenn wërta doon mbégam lu may dabu mbégum sëriñ bi rek moo moo war murit. fexe ba sëriñ bi boole ñu ci ay nitam mooy li am njariñ. fexe ba sëriñ bi boole ñu ci ay nitam mooy li am njariñ. wax na ay nitam nan lañuy war a mel wax na ko. wax na ay nitamit nañu war a mel sëñ bi wax na ko. Euh, kon nañu góor góorgóorlu ci loolu. kon nañu góor góorgóorlu ci loolu. sëriñ Touba kat mi ngi wax ne. Serigne Touba kat mi ngi wax ni. suñu borom tegtal na ci man lépp luy lu rafet ak képp kuy aj rafetal ku góor ak ku jigéen. Serigne Touba nee na yàlla tegtal na ci moom kuy rafetal góor ku rafet rafetal ak kuy rafetal góor ak jigéen. wax nee na radda ilaya allahu kulla maslaha wa kulla muslihin wa kulla musliha suñ borom tegtal na ma képp lépp luy rafet ak képp kuy ko rafetal kon nañu fexe ba bokk ci nit Serigne Touba. nee na Serigne Touba nee na suñ borom tegtal na képp kuy rafetal ak ku bëgg a rafetal yàlla tegtal na ko sëriñ tubaa kon nag nañ fexe ba fexe ba rafetal ndax ñu bokk ci waa kër tubaa fexe bëggante yeneen jàmm te di soññante ci taalibe. fexe bëggante ca yéenante jàmm cay soññente ci ak taalube ndax loolu rek mooy li am njëriñ te moo mën a tax ñu am ngërëmal sëñ bi ndax loolu li am njëriñ te moo tax mooy ñu mën a am ngërñu ngërëmul sëriñ bi ndax sëñ bi nee na képp ku jublu leneen lu dut loolu kooku bokkul ci moom radda li gayri allahu kulla mufsida kulla mafsada wa kulla mufsidin wa kulla mufsida képp ku nga xam ne kat dafay xàjjale wala muy yàq jëru sax euh, lenn ndax kooku moom bokkul ci sëñ bi sëñ bi moo ko waxal boppam. nee na sëriñ bee waxal boppam ne képp koo xamante ne dangay yàq mbaa ngay jaxase mbaa ngay boole sëriñ bi nee na kookee bokkul ci ñoñom de sëriñ bi ku jub ku jubal mooy bokk ci ñoñom. kon nanu xam ne suñu tànk war ñu ko teg ci lu du fudul ci jaamu yàlla bëggante te yàlla rek tax di soññante ci taalibe. nee na kon suñuy tànk waruñu koo teg ci lenn lu may jaamu yàlla di soññante ci taalibe ca bëggante. loolu loolu rek mooy mën a tax ñu am ngërëmal sëñ bi nga xam ne loolu moo ñu amal njëriñ àddina ak alaxira loolu rek tax ñu mën a am ngëriñu ngërëmul sëriñ bi àdduna ak alaxira kon kàddu yi foofu rek la jëmoon sëñ bi nee na kàddu yi de foofu rek la jëmoon ndax yéene ñu jàmm ak aw kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñépp ci taxawaay bi di ñaan sëriñ bi defal ñu suñu borom defal ñu ñu dégg sëriñ Tuubaa te jublu ko ni nim ko bëggee ci ñun sëriñ bi nee na loolu rek mooy kàddu yi nee na ñu ngi ñaan yàlla muy suñu buur di suñu borom mu jubal ñu tegtal ñu sëriñ bi ba ñu dégg sëriñ bi ba ba sëriñ bi ñu mën a jëriñu sëriñ bi tey ak ëllëg. te it ñëpp ñi nga xam ne xëy na comme li sëriñ bi doon wax sànq ñi nga xam ne bokkoon nañ fii wala bokkuñu fii dem nañ ñëpp rek lu mën a xew nañu xam rek ne fi ñu war a teg suñu tànk mooy cik way way ci lu baax ndax loolu rek mooy tax a jëriñu. nee na nga xamante ni moom la bi doon wax léegi. kii nekkoon na fee ak nekkul na fii amul solo li am solo ñu teg suñu tànk ci lu baax rek ca sax ci lu baax. sax ci ci wet ak ci wetliku. ñu wet ak ñu wetliku sax ci lu baax moo ñu war bu ñu wetee bu ñu wetlikoo it sax ci lu rek moo ñu war. ndax feeñoon na ci lislaam ci taarixu lislaam xare yoo xam ne ñi féete woon sax ci jullit yi ñu néew lañ ci ñi nga xam ne ñoo féete woon ci di leen xeex te teewut jullit yi ñoo am ndam ci seen kaw pas-pas bu sell rek yitte ju kawe rek mu maye loolu. ndax nee na ca la lislaam ji. am na ci xare yoo xamante ni jullit yu lu néew lañu woon yéefar ji de lu bari waaye postaf postéef ak jom rekk a tax jullit yi gañe xare yooyee kon ku bokk ci mbooloo meeg ku ci bokkul amul solo li am solo mooy ñi ki nga xam ne moo jublu lu baax mu ak dogu gu mat kon nee na kii ci mbooloo mi la bokk kii mbokk bokkul ci mbooloo mi amul solo li am solo daal ñu jublu ci lu baax taxaw ci lu baax waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp cay gërëm ñëpp. di ñaan màggal gii suñu borom def ñu àgg ci jàmm jeexal ko ci jam te am ci ngërëm. nee na màggal gii yàlla nañ ko jeexal ci jàmm jeexal ko ci ci digal yàlla ma ñu ci jàmm yàlla defal ñu ci jàmm ak sutura. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullah. Eh, sëñ Mohamed jërëjëf wax ji mënu woon a ñàkk jërëjëf jërëjëf. yal na taxawaay bi yàgg lool wax bii nga moo ja wax dama fàttali wax bu Cheikh Abdoul Fatah Mbacké waxoon bañ koy wax kii kii ci yow la jébbi ku man kii jébbalu ci man kii jébbalu ci man ñëpp laa yemale li ma bëgg mooy képp ku dib am jàmm billaahi ku dib judit la wax am jàmm ceet boo xoolee tuuru daayira bi xam ni tuuru jullit yépp la sëñ Abdou Fatah musta distingué julit ak ak tijaani ki mut sëñ Abdou Fatah ab julit a ko ñor na sëñ doon doon sëñ Cheikh doon joxe ko ko xam-xam ku ne sëñ Cheikh sëñ Abdou Fatah boo xoolee tijaan yee ko gën a bëgg xa laayeen yee ko gën a bëgg xaadir yee ko gën a bëgg yee ko gën a bëgg ca kenn ku nekk ci kër gi it teg nga ci sa bët ndax gis nga màggal yi ni daan ñëwee kon Cheikh Abdou Fatah ci la doon dox ñii ci la ñu fas yéene teg seeni i tànk ñu ko xam ñu ñëpp jàpp leen ci barke Cheikh Abdou Fatah